السلام عليكم ورحمة الله موكي انترنتي يونت صلى الله عليه وسلم دفا وخني كينا خمنا داي تود يالا اك كيغا خامنا دوي تود يالا دفا ملني لوي دوندو اك لو مثل الذي يسكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت سي تت نينا كي تود يالا دفا ملني لوي دوندو waye ki nga xamne duy tudd yàlla dafa melni lu dé kon nañuy fexe di tudd borom bi subhanahu wa taala mbokk yi jëlé nañ ci hadith ci sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu mu wax ni mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toogoog nak sahaba yi mu ne len ndax amna ci yéen ku mën fagul bopam junni yiw ci benn bés ndax amna ci yéen ku tële fagul bopam junni yiw ci benn bés kenn ku toogoon ca saxaaba yi ne ko kayfa yaksibu alfa xasanatin loolu moom naka la ko nit mën a defee naka la nit mën a fàggulee boppam junni yiw su benn bés xaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yu sabbihu mi ata tasbihatin mooy ngay sàbbal borom bi ci lu toll ci téeméeri sàbbal ci benn bés yonent bi wa sallam nee na ku sàbbal yàlla téeméeri sàbbal yàlla dina la bindal junni yiw effacer la junni bàkkaar waaye yaakaar naa lu bés bi xat-xat-xat war nga cee mën a def téeméeri sàbbal sàbbal yàlla nag bokk na ci ngay wax subhaanallah wa bihamdihi subhaanallahi alazim yooyu di subhaanallah wa bihamdihi jëlee nañ ci jaabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man qaala subhaanallah wa bihamdi usirat lahu naxlatun fil janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku wax subhaanallah wa bihamdi yàlla daf lay jëmbatal garabu tàndarma ci aljana te yaakaar naa ne ku narul dugg aljana du fa am garabu tàndarma kon di wax subhaanallah wa bihamdi wala ngay wala ngay wax subhaanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لو أما أم صلى الله بعد يويدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يننتبه صلى الله عليه وسلم من وخنان كيف كوي فرال دي وخ بار يويو بو الاخرة يالا دي ديسل سي جف يو باخ بني كو تيجي تي بالانس با بار يويو بار يو كوي ديسل لاي دون كون يالا نو يالا سخال ميو جوتو تود يالا di ko sàbbaal te di ko sant wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.